asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen ñu gisee ñu teew fii nga xam ne muy pàkk bu sel di Mbàkke di barab boo xamante ne nii sunu maam ju tedd ja di maam Allé Assane bu ngeen gisee mbooloo mi nga xam ne daje nañ fi tey bis boobu di benn bis boo xam ne dañ koy tuddee bisu fàttaliku bisu fàttaliku nag buñ koy wax muy bisub ñaan boo xam ne li nga xamante ni nii sunu maam ju tedd nekkee woon na ko fi. di diine lislaam ñu fas yéene suuxat loolu ba bokk yi yi nga xam ne ñoo ko bokk ñu mën a xam nan la ñuy àndee ba téye sunu bokk. ñu ànd ak groupe istixaama nag teew fii euh, ñetti fan ci weeru olof atum junni ak ñeent téeméer fanweer ak juróom-ñeent ci gàddaay yi dëppoog le 21 kon ñuy xamal ñëpp ne euh, surtout maam Allé Assane yi ñoo daje fii ci Mbàkke fas yéene ni nga xamante ni sunu bokk na lañ koy mën a doxe ba kenn ku ci ne gindikook sa moroom ba ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp mën a euh, gindikonte bu baax. loolu nag ñu ciy ànd ak Serigne mi nga xam ne tey moo fi xalifab Ali waaye nag ñu ànd ko it ak ay rakkam Serigne Mor Lo mu ngi fi waaye it sunu mag Abdou Mbacke Lo it ñi ngi ànd ak moom liggéey bi ànd ko sunu bàjjen Oumy Lo ak mbooleem njabootuk Ali Assane Gueye ak sët yeeg ñëpp kon daal ñu xam ne tey fii tey waxtaan yu ñu fi war a def weesuwut waxtaanuk bokk li nga xam ne suñu borom moom la wax ci ak bokk wa maa aatikum rasulu fa xuzu wa maa naheekum anhum fantahu ak bokk dañuy bokk baax bokk bañ waaye ñu bokkit liñ bokk yéene bokk bëgg-bëgg bokk li ñu am kon looloo tax tey jii euh, ñu ànd ak groupe Istikhama ngir fas yéene lépp lu rote fii ci biir événement bi ñu mën ko dëgtal ñi nga xam ne sori nañ ngir ñu mën a am benn réeroo ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene defal ale Assane Lo kon ñu def lu jox leen dig daje ci kanam tuuti ñu àgg ci biir wan leen jataay yi nga xam ne am na fa tey ci wàllu cérémonie officielle bi ginnaaw bi nga xam ne ci suba gi jàng al alxuraanul karim euh, bu ñu jullee tàkk saani sët yi war a amal waxtaan wu yaatu jëmale ko ci nan lañ war a doxee ngir mën a takk sunu bokk ba mën a dox kon mbokk yi seen xarit Sohaibou moo yoroon micro bi waaye ñu feggoog Abdou Bakhe Dia groupe Istikhama di leen jox dig daje wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. people Yeah. وجرا بدالا دواما دواما ربكم على الإله سنا كل محسن فلا إله إلا محمدي يا قضاء الحلال يا ما يا ترى على طريقك عن الصفحات والسلوى يا عند مدينة قد عاد الحيون يا يا رمى إلى وجه وجهها على أرض ضاعت يا قدر هم أماني xorom ñaawlo doo maas bu ñuy tëkkale def leen ni ñu magal Cheikh Mouhamadoul Moustapha baayu Serigne Seex Gaynde Fatma mi Serigne Bakke Soxna Lo borom Taayif yaayaatu yaa mën a muñ yaa noppi yaa bari jom Cheikh Moustapha togg jox Cheikh jox la ngay dënle moo da nga jiitu moo leen ni ñu baax ñi fi raw ñoom ñëpp ngi ñëw fi yaw ñoo yey ni yaa matale ana soppi si Mamadul Mustafa siriñu maam Ali Asan Lo def leen ñu màggal maami borom tey fak bay la yow ker gu sedd nga ñeex meññi te door ak itam te feex nga yaatu yaa baax ci waaju tele sëriñu maam Ali Asan Lo gaynde def leen ni ñu màggal Cheikh Mouhamadul Moussa yow kër gu sedd nga neex meññ teloor ak itam te feex nga yaatu te yaa baax ci waaju tele subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim wajal tawassuli li ma yadoo bii saadata daarayni wa xir li bii ginnaaw bi ziare Cheikh Mamadinil Muntaxa ibnu Cheikh Mamadal Bachir di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te taxawu ko bi jaay Cheikhul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Sidiyal Mokhtar suñu borom yokk ay leeram te taas ci barkeem di nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci jotaay bi. di ci jiital xalifa sëriñ Al Hassan Lo di alxaaji Chouaïbou Lo ñu ngi koy ziar ci turu kër gi. ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ziar rakkam yëpp ku ci mel ne sëriñ Habibou Lo ak sëriñ Mor Lo ak suñu bàjjan yi nga xamante ni ñoo nekk suñu ginnaaw di soxna Oumy Lo ak soxna Ma Awa ñu ngi leen di ziar bu baax ak mbooleem képp koo xamante ni rek yaa ngi sëtoo ci kër gi ak noo fi mën di sëtoo ñu ngi lay ziar bu wér a wér fas yéene nag ba laataa ñuy tàmbali liggéey bi dan di jottali kilifa yi nga xamante ni ñoo fi jot a teew ndax ku ne xam na ne ay kilifa yu mag ci dëkk bi teew nañ fi ñu ràññee ci sëriñ Bachiru Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadinil Mourtala ibnu Cheikhul Khadim ñëw na fi sànq ñaanal mbooloo mi wax fi wax ju am solo sëriñ Mourtada Mbàkke ibnu Cheikh Abdul Ahad ibnu moom tamit teew na fi sëriñ Alxaaji Mbàkke ibnu sëriñ Habibu Mbàkke ràññee nañ ko ci jotaay bi bu baax a baax sëriñ Motada Mbakke ibnu sëriñ Abdou Mbakke yàllaay buur di xalifa Mamor Diarra moom tamit ci suba ba léegi mi fi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci turu alhaaji Chouaïbou Lo xalifa sëriñ Ala Hasan sëriñ Touba Mbakke ibnu Mam Ball Yoni Mbakke teew na fi ñu ngi koy sant bu wér wér di ko gërëm sëriñ Abdou Ñaan Touba Sourra moom tamit teew na fi. sëriñ Fallou Sylla sëriñ Fallou Sylla Kébémer teew na fi wax nañ ne sëriñ Sidi Ñaan tamit teew na fi sëriñ Xaadim Mbàkke mu sëriñ Maxtaar Mbàkke mu Maamoor Jaara magi mag teew na fi kon kilifa yooyu ñoo fi teewoon ànd nag liggéey bi njabootuk sëriñ Aale Xasan gépp kon dan di jàllale programme bi ni nga xamante ni noonu lay tëdde ku ne xam ne ne sëriñ Aale Xasan bi muy ñëw Mbàkke dafa am ñoo xamante ni ñoo ko dalaloon bi ko fi Cheikh Mamadou Moustapha ënnee ngir boole ko ci ñi nga xamante ni day laaj seen xalaat nga xam ne balaa def dara ci dëkk bi wala ci yoon wi dana diisoog ñoom door koo def Serigne Alla Hassan Lo kon mbokk yi ñu xam ne ci ñooñu la bokkoon Cheikh Mamadou Moustapha moo ko indi woon Mbàkke ginnaaw bi mu ko fi indee nag ñu ko dalal bokk na ci kilifa yi toog ñu ràññee ci Serigne tuuba Mbàkke moom moo fi war a ñëkk jël kàddu waaye ak kaddoom da koy jox sëriñ alxaaji Mbacke ñu di ko wax sëriñ Fallou Mbacke su paree danañ jàllale kàddu gi ci sëriñ Abolo sëriñ Abolo bu alxaaji sëriñ alxaaji Cheikh Lo bu maam Ala Hassan Lo moom tamit dana fi yëkkati ay kàddu ci turu sët ak seeni programme suñu paree ci loolu danañ jox sëriñ Mor Lo doon kenn ci leer yi sëriñ Ala Hassan Lo moom tamit dana fi jël kàddu ci turu soxna yi soxna Lo. bu alxaaji xamsatuloo dana fi jël kaddu suñu bàjjen soxna ummiloo moom tamit dana fi jël kaddu suñu baree daal di jox sëriñ Ousmane Lo mu am lu mu leeral ci dunduk sëriñ Ala Xasan Lo bu loolu wéyee nag ñu daal di jox alxaaji Chouaïbou Lo mi nga xamante ni mooy xalifa kër gi mu tëj jotaay bi kon dañ jox sëriñ Fallou Mbacke mi nga xamante ni ñoom bi sëriñ Ala Xasan ñëwee ci dëkk bi Mbacke Bawol ñoom ñoo ko dalaloon kon sëriñ Fallou Mbacke moom la ñu jox kàddu gi mu am lu mu leeral ci sëriñ Ala Xasan. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën tëdd ci lislaam muy asalaamaaleykum di ñaan suñu boroom mu nangul ñu nuyoo bi ak fay gi ngeen ñuy fay ndax lépp aw yiw la kon yàlla na ko suñu boroom defal ci nuyoo bi nag suñ turu kilifa di suñu baay. bay Touba Mbacke mi ci sama wàllu ndeyjoor moo ma jox ndigal mu nuyu bokk yi sant leen fàttali leen sant gi mooy lii ñuy def di sant yàlla ci suñu waajur bu baax woo xam ne bàyyi la ci ñun di maam ci ñun muy sëriñ Ali Assane loo képp ku nekkoon ci yoonu murit xam nga ko dégg nga ko wala boo ko déggut boo ko xamut tam xam nga ay jëfam ak ak ak ak ak waa këram yoo xam ne nii seen tànk saratul mustaqim lañ ko tegoon ndax moom dégg naa ñu ne bu masaan dem ci ab dëkk ba fa xamut kenn itam day taxaw ca pénc ma di jàng alxuraan bañ dégg ko paw ñu dalal ko kon kooku mel na ne alxuraan ci la leen xëy ci ca gont suñu borom defaloon ko ci loo xam ne lu kawe njort la woon loo xam ne kenn mënu ko woon xalaat ah, léegi nag gannaaw suñu borom baaxe nañu suñ maam ya yàlla baaxee leen bañ jël ku mel ne ale asal dëkkal moom fii ba lii xew tey ñun tam dañuy sant yàlla ci loola ndax suñ maam Balla yónni wax nañ ne moo laajoon sëñ Modou Moussa ndigal mu jox ko maam Ali Assou mu dëkk ak moom xay na ñàkkutoon li mu ci gis te li mu ci doon gis mooy lii la lii mooy jeexital ji. ah yéen nag yéen ñi nga xam ne nag yéen a soq ko ci sëñ Ali Assane loo te ñu itam ñu soq ko sëñ Abibu Mbàkke ba ci Balla yónni yàlla boole ñuy bañ mën taxawi lii sant nañ yàlla ñoo ngi ñaan suñu boroom mu gën koo yokk gën ñoo nangul li nga xam ne moom la ñuy def ah ndax nag mbir su fekkente ne xew na te li ñu te li xew lépp li ci baax sirat mustaqim lañ ko def ak jamono yi mu toll kenn ku nekk ya seytaane jàpp nañu bare bari ñoo xam ne ñu seytaane yàqal na leen ñun yàlla xiir nañu ci lii dañoo war a sant yàlla tey jéem ca nàmpatal nag suñu njaboot gii buñ leen ci nàmpatalee bu ëllëgee ñun tam bu ñu fi jógee suñ xel dana dal ndax yaakaar nañ ne suñu waajur yi ñu jiitu nekkoon fi ba lii xew seen xel dal na li ñu leen di ñaanal nag yàlla ñu suñu leen jotal te ñun ñi fi nekk tam yàlla ñu yàlla bàyyi barke bi sama bàyyi mi dafa wax ne dafa sant waa kër Allé Assane lépp yëpp yëpp yëpp yëpp tàmbali ci góor ba ci jigéen di ci jiital nag soxna Oumy Lo mi nga xam ne mooy mooy xalifa bi ndax bu doon jigéen bu doon góor ne tey mooy toog toogaayu Allé yàlla baax yàlla dogal nag comme solution bi moo nekk moo toog toogaayu Allé Assane Lo lay jiital ci nuyoo bi ci nuyoo doom yi ci jiital doom yi ak sa soxna maam maam maam Bousso maam Diar mi nga xam ne ci sët yi moo leen jiite ndax moom itam ñëpp gis nañ ab te bu doon góor dana def loo xam ne xam nañ ne li taxawaayu góor la waaye nag teew bi muy jigéen te def na loo xam ne góor ñu bari mënuñu ko ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi alaaji Mor mi ne sama bàyyi tubaab dafa maa ci moom daf ne mi ngi koy sant mi ngi koy ñaanal ay xéewal yu yokk ak fan wu gudd ak njaboot gu ndax nee na li muy def ci guddi saar gii bu ko neexoon ba fi yaayam jógee mën na téye loo xam ne du ma ko def kon léegi la mu doon def xam na yàlla rek a tax yàlla mi tax nag mu doon ko def yàlla na ko nangul li mu doon def mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm ñun tam ñoo ngi leen sant man tam min itam ku ma xam xam nga ma morloo suñu bi ànd yàgg na te mosuma kon yàlla rek tax ñu doon ànd yàlla nu yàlla dimbale ba seytaane ba ñuy dox ci diggante bi lépp loo xam ne def nañ ko tam te yàlla tax yàlla ñu gàll nangul ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn daal ñun daal wax dëgg yàlla moom dama mënta wax ci rajo waaye lii daal moom sama xol laa ko jële maa ngi sant baax a baax jërë ngeen jëf waaw ngir njëkkanteeg waxtu wi kon mën nañu daal dugg ci euh, li nga xam ne sët yi nas nañ ko am yéene ci loolu te di leen ci tàggu yéen ñi nga xam ne yéene suñuy kilifa ngir ñu ci amee seen ndigal ñu mën a wéyal loolu. loolu nag maa ngi koy wax ci ab Abdou Mbacke mi nga xam ne tey mooy sunu mag bu fi nekkoon tey jii kàddu gi euh, nii nii la koy waxee wala ñu wala mu wala mu xool nu mu jubee rek mu waxee ko noonu. li nga xam ne moom lañ xalaat ci tënk Pape Souhaïbou Pape Mor mooy dañoo gis ne ñun sët yi war nañoo gën a mobiliser mobiliser wu waat te ndaje mii bokk na ci li nga xam ne day mobiliser mbooloo mi ngir loolu mën a sax nag moo tax ñu programme. sët yi am nañ yéene maanaam am këru sànnoo si sànna am nañ yéene am fa kër goo xam ne bu màggal sànn jotatee ñu ne kër gee mooy kër aale asan mboolem ñu sotu si aale buñ dematee sànn kenn bañ a boqatu fenn wala ñu lay dalal loolu mu doon loo xam ne dañ koo xalaat di leen ko jox ngir loolu ngeen xalaat ci ndax loolu buñ ko amee nii murid yi dëkkee poroxaan gis nañ ko dañuy daal di collecter rek bu ñu amee pàkk bi def fa seen douche publique di ko baas di fa nekk di ko di ko dundal ba keroog kër gi fu ñu bëgg mu àgg fa mu àgg fa. ñaareelu point bi yeesalaat kërug mbàkke gi loolu dana bokk ci programme mu sët te loolu dara nañu ko may lu dul war nañuy daje weer wu ne ngir ñu bañ koo def at mën nañu daje fi rek waaye weer wu ne bu nu waxtaanee bu ngeen ñu ko nangulee ñun buñ tëralee suñu programme. weer wu ne war nañuy mën a daje ndaje moo xam ne dañ ciy tënk ngir yitte yii nekk suñ kanam nan la ñuy mën a defam saafara juróomeelu programme bi mooy kër gu ne ka mag suñ tëralee liggéey bi kooka la ñuy wàcce liggéey bi ci kawam moom mu saytu ñam ñam mag ca njabootu kër googu masalan bu ne kër sony buloo ka mag la ñuy jox liggéey bi moom mu saytu ko naka noonu kër euh, buñ ne kër alaaj seexloo noonu buñ nee kër pa am satu noonu noonu lañ koy séddale nga xam ne liggéey bi dana gaaw te kenn du sonn kon loolu ay tëralin la yoo xam ne moom lañ tënkoon mu nekk juróomi point ñu ne woon bala ngeen a jël kàddu ñu wax leen ko su ngeen su ko defee kàddu yi bu agsee ci yéen lu ngeen ci xalaat ak lu ñu war a soppi ñu xam ko ndax sëñ Blaat dafa waxoon ne wax lu mu bari bari na ko amee njariñ waaye tànk lu mu gaaw gaaw na ko tege ci kaw yoon kon loolu moo nekkoon kàddu yi maa ngi jéggalu bu baax wa rahmatullahi taala wa barakaatu. billahi mina bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ba ma sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi sant samay ñaari waajur euh, maa ngi ñaanal sëñ Cheikh Sidi Makhtar Mbacke suñu boroom yokk ay leeram te tax suñu ci barkeem di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou suñu borom oyofal yan bi lool ci kawam ba lépp. di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou suñu borom oyofal lool yoon yan bi ci kawam ba lu mu bëgg a liggéeyal maam ji tedd ji mu liggéeyal ko barke Xaadimal Moustapha di ñaanal sa maam Allé Assane fa mu tëdd suñu borom yokk ay leeram tax ci barkeem ak suñu wéyjur yi jiitu yëpp di wax ci turu maam bu soloo mu Alaaji Bàcc si turam laay waxee mi ngi nuyu baayam yëpp si turu sam papa bu mu jàlleel ko ko di sant baayam yëpp di leen gërëm di nuyu bàjjanam yëpp di si jiital sam bàjjan ummi di ko ziyaar bu baax a baax di ko gërëm moom it di ko sant lool ci li nga xam ne si moom la def pour ñun famille bi di sant magam yëpp di sant rakkam yëpp ñi fi teew njiitalu Seex Anta Lo ci góor ñi di ji sant tamit suñu cousin yi si njëtalu Papa suñu cousine yi si njëtalu Soxna Mbacke Touré mi ngi wax na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp rakkam yeeg magam yi waaw man na li may wax ci affaire bi mooy lii ku ko def dina ci am yàlla am ci yëpp parce que dajale am mbokk la te mbokk alalu yàlla la te alal yàlla ku ko sàmm rek suñu borom dina la fay. li nga xam ne moom lañ ciy def lépp yaa nañu ko suñu boroom fay ci barke maam borom Touba Mbacke ñun ñi nga xam ne ñooy sëtu Allé Assane yi di gën a jàppoo gën a nekk benn jël màggalu maam Allé Assane gii def ko suñu yitte def ko mi suñu lépp. ñu góor góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ban koy dégg fu ne fu ne su réseaux sociaux yeeg fépp ñu dem bay toog télévision du màggale suñu maam Allé Assane parce que suñu maam parce que liggéeyal na sëñ Touba lu ko jar liggéeyal na Cheikh Modou Moustapha Mbacke lu ko jar ay njaboot tamit liggéeyal na ñu njabootul sëñ Touba lu ko jar maa ngi sant ñëpp di ñépp jër jërë ngeen jëf. Mame Bousso nee na mi ngi sant rakkam yëpp ñëpp ñu topp ci ginnaawam góor ak jigéen bàyyiwul kenn ndax déggal ngeen ko nangul ngeen ko fu mu leen na foofu la foofu la lu mu leen wax ne leen nii la nii la amu leen leen xaaj ak seet bi ngeen ci dind. nee na mi ngi ñaan yal na suñu borom fayal leen boppam ci barka Seexul Xadim jërë ngeen jëf. daaneel rajim bismillaahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbooloo mi ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di sant yàlla bu wér a wér ci bis bii. E, bala maa commencé tuuti dina am lu ma fàttali lu ma fàttali tuuti loo xam ne e, am na koo xam ne doomi sëñ Tuubaa man mii ci bopp daf ma fonkoon bu baax a baax te ale asan loo moo taxoon ma fonk ma kooku mooy Cheikh yi bu Mbàkke Cheikh Soy bu Mbàkke defal na ma loo xam ne yaakaar naa ne lu jafe la ndaxte ñëw naa seet si ko wax ko benn programme mu ne ma man dey moor ñi ngi gouvernement bi xamuñ ma ma ne ko sëñ bi gouvernement bi xam nañ la mu ne ma déedéet léegi daal xam nga nooy def ma ne ko ah mu ma gaaw bii di ñëw daal boo delsee da nga fekk ma wax ko sëñ Abdou sëñ Abdou boo ñëwee yow dinaa la fa yóbbu parce que da nga fekk ma waxtaan koog sëñ Abdou sëñ Abdou ba pare te boobu sëñ Abdou Laat fi bi gaaw bi ñëwee ma dellu ma daal di ñëw bi ma ñëwee mu daal ne jong boo demee àndal ak moom boo demee nga ne sëñ abdu kii laa ko doon wax. te temps boobu sëñ Abdou mi ngi ci xalifa gi metti woon lool gis ko dong ñoom ñaar yaakaaroon na ne waruñoo mën a gisante ba di ma xalaat man te loolu sëñ Souhaïbou bu def na ko te ale moo tax nag mu def ko loolu du man mii maa taxoon mu def ko. bi ma ñëwee aussi sëñ Abdou dañ fekk salle bi fees dell ak ay nit bi jong ñëwee ne ko ki sëñ bi waxoon ñëw na mu ne nit ñi génn leen may ma nit ñëpp génn may ko mu ne ko nee ko mu ñëw ma ñëw jong ñëw mu ne jong génnal may ma. jong génn mu ne ma tëjal bunt bi ma tëj saal bi maag sëñ Abdoulaye ñu toog mu ne ma sooy bu wax na ma waale yow waxal ma dégg ma waxaat ko la ma ko la ma la waxoon ak seen sooy bu yëpp ba pare mu ne ma dey li nga wax ni mën na maa woo léegi ab du juuf ngeen wax yéen ñaar mën na maa bind lettre jox la nga dem Dakar wax ak du Diouf mën naa tim ñetti weer yi may gane bu ñëwee ma woola nga wax ak moom waane man nag moor damaa bëggoon ñu waxtaan ma ne ko ah dama laa bëggoon a defal lu loolu. ma ne ko loolu mooy lan mu ne ma boole la ak sëñ Tuubaa direct waaw te loolu. loolu aale moo taxoon mu def ko du man parce que man boobu xale laa mais sëñ son bu fu mu tegoon aale laa bëgg ñu xam ko bu baax a baax ba xam kan mooy aale sëñ son bu bi mu fiy jóge dama ñëw seet ko sëñ Souhaïbou bu musumaa ñëw te man tëjuma ma ak moom ci benn néeg mu jox ma dara ma naan wala mu jox ma dara ma lekk musul am bu ma ñëwee daf may jël ma teg ma fen te loolu man taxuma woon xale laa ala ah, moo taxoon ah, ñëw naa mu daal di may daf may gunge sëñ bu lu ñu bari xamutoon sëñ bu damay ñëw mu ànd ak man ba ci bunt bi teg ma loxoom ñaanal ma door a delluwaat sëñ sooy bu ñëw laa tàgg ko ne ko damay bëgg a dem màkk ci weeru koor wi mu daal ne ma ah ma daal ne ko waaw mu ànd ak man ba ci buntu saalam mu taxaw téye ma sama mbagg ne ma moor day man sama tànk yi day metti ma ne ko ah mu daal ne ma waaw mu ne ma tànk yi di day metti ma ne ko tànk yi xanaa mooy euh, xanaa loolu kon sedd la mu ne ma dama yaakaar ne sedd la bi dégg naa am na ñu koy faj Tunis dama bëggoon su su ma ñëwee kon ñu ànd dem fa mu ne ma ah Mor nag man jotewuma Mbàkke ne ma daal ne Mor nag man jotewuma Mbàkke xanaa yow boo ñëwee nga def pexe ma daan ne ko waaw kon su ma ñëwee rek xam naa damay def pexe ndekete man boobu sëñ bi tàggu na ma te xaw ma ko damaa jël du dëkk egg Dakar jël avion dem Jidda bi ma wàccee Jidda ba ne bala maa tawaaf kaaba gi naat woo sama waa kër. bi ma wootee ñu ne ma ñëpp nga Touba ndax sëñ bi moo nelaw noonu laa def ak sëñ Sonia bu donc te loolu lépp sëñ Sonia bu aala dong moo taxoon mu dama ko defal ndax dara taxutoon parce que man booba xale la mais tegoon na ma fu rëy rëy rëy sëriñ Cheikh Mati lay fi jógee bu yàggul dañoo daje moom itam euh, te lépp aale la moom itam dañoo daje maak moom Makka euh, sëñ Sidi euh, appartement biñ ko jox. ñi organiser xam nañ ne man murid laa te moom bëgguñu ko dalal ak keneen daal ñu moo ñu am ñetti fan fekk man maa am retard nekk Paris jóge fa bi may egg Makka fekk naa moo am ñetti fan yoo xam ne am na ñu amul néeg te néeg benn bi sëñ Cheikh Mati nekk bi ci topp kenn kenn mënu koo jox kenn ñu ne ko daal am na benn murid boo xam ne moom rek mooy moom rek moo mën a dëkk ak yow. bi ma ñëwee mu yónni Cheikh Coro ne ko man de murid boobu bëggoon naa ko xam mooy ban. ndaxte nii organisateurs yi sonne ci moom ne fu ma jaar moom maam maa moom moomoy dëkk daal bëgg damaa xam mooy kan. Cheikh Thioro daal di ñëw daal na ma sëñ bi dey euh, sëñ Cheikh Matalay moo nekk fii ma daal ne ko ah waaw sëñ Cheikh Matalay de man gisaguma ko sax Sénégal mais bëggoon naa koo gis nag mu ne ma moom sax daf laa soxla ma ne ko ah mu daal ne ma waaw ma daal ne ko man pare naa pour ñu dem bi ñu demee mu daan ne ma kuy sa waajur ma ne ko Allé Assane mu daal ne ma sëñ Cheikh Mbacke de moo ma jàpp ci loxo ne ma del dem ci sama nijaay ca Mbacke mu dale ñaanal waaw daal ne moo ma daa ñaanal ca Mbacke. Cheikh Coro ñëwaat ci man ci sama néeg ne ma man de sëñ bi sa baay bëgg damaa xam mooy kan ma ne ko ah mu ne ma sëñ Sidi de ni mu koy yéeme musuma gis mu yéeme ko nit waaw. loolu sëñ Sidi Maxtaar mii def na ko man ca Makka ma ñëwaat beneen yoon boo xam ne. sëñ Xalil euh, bu sëñ Fallou ak sëñ Mamor bu sëñ fàllu ñoo ànd Makka bi ñu ñëwee comme man màkk su ma demee comme organisateur dañ may jox sama tànt bopp euh, bokkut ak tànt mbooloo mi ñoom ñu dugal leen ci benn tànt boo xam ne lu ma ay 60 personnes fay ne ma ñëw génne leen indi leen sama tànt parce que man man rek maa nekk bi ma ko defee ñu toog noonu am nag. Euh, ñeneen euh, rédacteur université ay ministre ay kii yu bëree bari parce que ñooñu maa leen doon encadré bi ñëwee ñu bëgg maa sonal fekk boobu may julli may julli faalewuma leen ñuy dem ñëw ku nekk ñëw ñëw ñëw loo loo loo mais man ma nekk ci ma nekk ba pare sëñ Xalil daal ne ma ah ñii de xamuñu la ma daana ko ah, mu ne ma ñun ñi ngay nëbbu de xam nañ la ma ne ko ah mu ne ma waaw parce que ñun koo xam ne sëñ Tuubaa nee na kaamil bu sa bàyyi xool doy na kooko yaakaar naa ne dara jaaxalu ko loolu tim di témoignage boo xam ne waa Kër Sëñ Tuubaa ñoo ko def waaw donc kon góor gi noonu la meloon eh, yaakaar naa ñu bari war nañ koo xam comme yéen sët yi war ngeen a xam ne daal eh, yii ma leen wax daal yoo xam ne ay waa Kër Sëñ Tuubaa ko def yii ñoo ma ko wax yoo xam ne lii yaakaar naa lépp noonu la demee ñu bari xamoon nañ ko ñu bari dégg nañ ko am sa tutim nett li ma nee ma dem na kër Sëñ Abdou ñu toog di waxtaan fekk fa mbooloo mu bari ñuy woon boobu ñuy seet ñi dàq alxuraan ci yoonu murit ñu di ci waxtaan nee na bi ñuy waxtaan ba ci yàgg déggul ñu tudd aale mu daan ne leen ah man nag mu di yëkkati loxoom suñu ablaat na may leen kii am wax mu ne ko man de damay dégg ngeen di wax ci tudd leen sama baay mu ne ko kuy sa baay mu ne ko aale Assane Lo mbooloo mépp ànd noonu ne ko wax nga dëgg waaw kooku la ñu waroon a jiital waaw donc kooku aale kooku moo nekkoon aale waaw moo fii. kon nag dañ leen di sant bu wér a wér yéen yi nga xam ne yéen a organisé lii tey te xam ne yëg nañ ko bu baax a baax pour sant sët yi dama bëgg a commencé ci njóobaloo njóobaloo mooy doomi astuloo kooku moom mag ci sët yu jigéen yi fi mu nekk nii kooku ñu xam ne moom ba ca ci gën a tuuti ci waa këram ñu ngi leen di sant bu wér wér ci kër ci sët yu góor yi ab Abdou Mbàkkeloo moo ci mag Abdou Mbacke Lo bi may ñëw rek yóbbante na ma moom parce que daf ma ne lii dafa dañ ma ko yeex a wax yaakaar naa def la ci peut-être da ngeen ko mën a wax ak Mame am na lu baax lu mu def ci bis bi mais ne ma nag man samay rakk waruma bokk ak ñoom di di ñuy cotiser ma ne ko pourquoi mu ne ma man luñ fa war a jënd maa ko war a jënd mais dañ ma koo teelu wax te bis yi jegaleewoo ak sama bisu bàjjen te sama bisu bàjjen tamit dafa am lu ma ca war kon nag normalement buñ ko mënee yaatal ba bis bi ñu mën koy waaj man loolu dana ma neex parce que samay rak lépp lu ñuy def maa ci war a jiitu loolu tamit Abdou Mbacke loo wax na ma ko moom itam kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ak ay rakkan Cheikh ant loo ci kër am satu ñu ngi koy sant bu wér wér gis nañ taxawaayam yi ñëpp gis ngeen ko dem ba léegi mi ngi fi lépp lu ñuy def mi ngi ci donc tam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax. ñi ngi sant abooloo mii ci ci kër alaaji seexloo ñu xam na moom itam def na fi démb ba léegi mu ngi fi moom itam te ba mu xëyee jabootam yëpp a ngi fi kooku itam ñu ngi koy sant bu wér a wér a wér a wér ñi ngi sant am satuloo bu sëriñ ñu ngi koy sant moom itam ak ay rakkam ñëpp ñu xam na ñu ngi leen di sant bu wér a wér a wér kër Omar loo ñu ngi koy sant bu wér a wér parce que ci njaboot gi la bokk moom itam mi ngi koy sant ak i rakkam muy góor muy jigéen donc kër gu nekk ñi ngi jël ka fa jiitu ci góor moom laay wax nii su ma noppee dinaa dem ci jigéen ñi mais ki jiitu ci góor ñi ngi koy sant bu wér ci ñoom ñooñu ñépp ma tudd euh, donc kër Sohaibou Lo ñi ngi ñi ngi sant maam ale Hmm? waaw am Amdi loo ci kër gi la bokk fi la juddoo donc moom yaakaar naa li ñu boole bari na yéen ñëpp xam ngeen ko ñu ngi koy sant moom itam bu baax a baax ku ñeme coono la mi ngi def lépp li mu war a def kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax. ci turu sët yu jigéen yi ñu xam ne maam jaara maam Bousso Lo yaakaar naa li mu def ñëpp gis nañ ko. kooku du loo xam ne lii lu ñuy wax lenn la parce que def na li mu war a def en tout a ay rakkam déggal nañ ko ànd naa ak ñoom defar na bis bi ba mu baax kon nag ñi ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax te di ko sant ñi ngi koy gërëm bu baax a baax a baax am di loo xaadim loo ñi ngi koy sant bu baax a baax a baax ci kër am di loo buñ paree ñi ngi sant ndey loo ci kër Amdi Lo ñu ngi koy sant bu baax a baax Cheikh saar Cheikh saar ma ñëw ci kër ah, Aminta ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ak ay rakkam Cheikh Sarr ak ay rakkam ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax muy góor muy jigéen. maam jaara comme li ma leen doon wax rek maam jaara yaakaar naa ne lim def xam nañ ko. gis nañ ko ñu ngi koy sant buur bi mën a fay yàlla na ko fay te fay ñëpp ñi fi ñëw soxna ñi ngi sant ndeyloo bu baax a baax a baax awaloo ci kër am sa tuloo ñi ngi koy sant bu wér wér moom itam ñi ngi koy sant bu baax a baax gis nañ taxawaayam gis nañ coono yi gis nañ ñëpp képp ku fi ñëw daal xamal ne muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag ci sët yi xamal ne xam nañ la awaloo ñi ngi sant faatu loo mi mag ca këram moom itam ci ñi fi ne sant seexloo ma nekk Italie ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant yàlla fay leen liñ fi sonn xam nañ ko yàlla na leen ko yàlla fay ñu ngi sant ñëpp muy góor muy jigéen sooy buloo moom duma ko sant moom moom moom yëf yi moo ko moom yëfam la mooy xalifa mais nag dinaa ko sant ci xalifa bu neex a àndal la parce que koo xam ne kii loo ko wax mu ne la boo loo d'accord d'accord naa ci loolu lu jafe la parce que moo moom kàddoom moo moom yëfam bàyyi ko loo ko wax mu ne la jëlal man mosuma koo wax benn bis ci àdduna ci loo xam ne ci famille bi la wala dara te néewuma loo ci xalaat lool laa ci xalaat donc loola bay waaw abibuloo moom sama rakk la ñu ngi xëccoo waane mooy sama rakk ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant Moustapha Lo doomam di sant ay doomam yépp góor muy jigéen ñu ngi leen di sant bu wér a wér Abibu moom dañoo nekk ci xëccoo maak moom moo tax loolu moom lu ñuy régler la waaw donc kooku ñu ngi koy sant bu baax a baax baax a baax Abibu Lo ku disponible la lépp lu ñu ko wax mi ngi ci. jigéen ñi Oumy kenn mënu koo fay parce que bu ñuy wax bis bi li ci ëpp bu ñu doon wax naan bu doon ne dañ koy natt mën nañ ne quatre-vingt pour cent yi muy juróom-ñett fukk yi moom moo ko def parce que moom moo indi xalaat bi moo ko waxtaanee ak awaloo. am bu am sa tuloo ñu waxtaane ko ak maam jaara ñu dem ba affaire bi taxaw donc kooku tamit ñu ngi koy sant bu wér-wér ami di kenn ci ñun ami ñaan bu ñu ko tuddee yaakaar naa ne moom ñëpp xam nañ ko ci ñun la bokk mi nga ànd ak famille yëpp la àndal muy góor muy jigéen ñi ami ñaan nuñ laa fay ñu ngi lay sant bu wér-wér kër Allé Sène ngi lay sant di la sant guddi duñ ko fàttee ku Ablaye Sylla maanaam kër Oumy Lo Alaaji Sylla mooy mag. Alaaji Sylla la ñuy sant bu baax a baax moom ak Ndey Sylla Ablaay Sylla ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir donc yéen ñëpp ñu ngi leen di sant muy góor muy jigéen ku waa Kër Baara Lo Ibra Lo ngi fi ñu ngi koy sant bu baax a baax kee ngi fi euh, Abdou Sey Abdou Sey laa bëgg ko wax Abdou Sey ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ñi ngi koy sant vraiment te di ko gërëm kon ñi ngi sant ñépp ngeen xam ne am ngeen beneen sœur bu nekkul Sénégal muy faamataloo ñi ngi koy sant bu baax a baax parce que ku baax la heure bu ñëwee fexe na ba xam ñu ci ñun demuñu seeti ko te moom ba muy ba muy ba muy juddu foofu la juddoo ñun demuñu fa xamuñu ko te moom fexe na ba ñëw Sénégal ba xam ñu loolu lu am importance la pour xale yi ak ku dem Tchad nga xam ne sa doom bàyyee nga fa te moom fexe na def na ay effort ba ñëw Sénégal ba xam ñu ba ay doomam ñëw fi ba jàngee fi te ñun kenn demagut seeti ko ni euh, Tchad kon képp koo xam ne yàlla may na la kattan wala mu may la nga dox ba egg càdd war nga faa mën a dem seeti koo xam ne sa mbokk nga fa parce que mbokk loolu rek lay jariñ donc kooku tim ñu ngi koy boole ci ngërëm li di gërëm ñëpp awaloo ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm ñëpp. ci soxna yi nga xam ne bii ñoo àndoon ak suñu mag yi fi jógee ñi ngi leen di sant bu baax a baax ajaratu Kumba Faal a ngi nii ñi ngi koy sant ñi ngi koy sant sarax saara ngi fi ñi ngi koy sant bu baax a baax amul kenn kuñ ci bàyyi ñi ngi leen di sant yéen ñëpp yëpp ñëpp ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw xam leen ni daal bis bi bis bu fi amoon la nag loolu tim lu mat a la parce que bis bi alaaji Seex def na ko fi ay at nag c'est pas la première fois ala Cheikh def na ko fi ay at mais yëfu kenn dafa war a da da moom moom moo baaxul parce que yëfu kenn day dem ba ci yàgg mu jeex mais alaaji seex jàng nañ fii fanaana jàng bu bët set bis bii yoo xam ne fekk naa ko ay yoon yoon sax donc kooku tamit lu mat a rappelé la ñu xam ne mbooloo mi nag li ngi tax ngeen war cee gën a góor góor lu mooy loolu parce que bu fekkee kenn rek da koo yor ak jeexam day yomb waaw bu ko kenn yoree day gaaw a jeex mais bu ko mbooloo yoree mën naa bañ a jeex parce que ku dem sa morom ñëw remplacer la moo tax mbooloo mi lañu bëgg mu gën a dëgër pour ngeen gën koo jàpp te nga xam ne daal seen bisu maam la ñun lépp li ngeen d'accord man mi d'accord naa ci sooy bu loo dana joxe moom ay recommandation ni mu ko gisee ni mu ko bëggee ñu defe ko noonu lépp lu mu wax maa nga ca d'accord naa ca lépp lu ngeen wax itam maa ngi ci lu ma yëgee ci maa ngi ci bu soobee yàlla donc ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant li ci des mooy xare yi comme alaaji Mbàkke moom ñun ñëpp xam nañ ko Baay Tuubaa ñun ñëpp xam nañ ko donc ñi fi nekk ñëpp daal muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw xam leen la yëg nañ ko yëg nañ seenu ñëw Faati Fall mii fi la yàgg na feek ñun fi la nekkoon donc moom daanaka fii la xamee lépp ñu ngi koy sant di sant waa këram di sant ñëpp ñi fi nekk daal ñi bàyyiwuñ kenn Assane Diagne ñi ngi koy sant di sant ñëpp ñi fi nekk kuñ tudd daal xamal ne euh, xel mooy fattu mais ñi ngi sant góor ñi ngi sant jigéen di sant mag di sant ndaw bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu taala alayhi wa gannaaw bi ñu santee yàlla julli si yonenteem ñoo ngi dellu di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul suñu yaakaar di dellu di jaayantewaat ak moom ci suñu yëngu suñu dal ak suñu bakkan ak suñu lépp ndax moom mooy ki xam ni ni moo ko jar di leeral mbooloo mi rekk jëmm ju fi teewoon léegi nii di sama bunt ci sëriñ Touba di sama waajur di sama sëriñ ma jébbal ko sama bopp muy sëriñ Xaadim moom Serigne Cheikh Lo moom Cheikh Mouhamadou Lo na teew na fi léegi la fi jóge di sëtub Aale Assane ndax way jur lay woowe ñoom nijaay bu ak tonton Mor ñoom ñëpp di ñaanal nag Serigne bu Lo mu yàgg fi loolu te ak mbooleem rakkam yi di ko ñaanal tamit soxna Oumy ak mbooleem rakkam yi di ko ñaanal Abdou Mbacke ak mbooleem rakkam yi di ko ñaanal soxna Mambou Salo ak mbooleem rakkam yi li ñu jox liñ ñu jox nag digal mën naa ne lu yomba waxtaane la ndax day lu riis lu set wicc lu weex tàll lu dara raxul ñii ngeen gis nii ñu teew fi muy Serigne Abdourahmane Lo ak ñi nga xam nii ñoom laa ndal mooy ñi nga xamee ni nii askanu ndaam wépp nga xam ne ñépp tase nañ ci nga xam nii daam isa mi nga xamee nii moom lañ ko tuddee moom la ñu wax ne moo yilif askanu ndaam wépp fi mu nekk nii woy juróom wu jigéen Faatumata bintu ay dara la tudd ab naar la woon daam isa mbobuk moo ko jur mbobuk saamaan ibnu soofiyu moo jigee woon gànnaar ñu wax ne santuwuloo sax ci moom la tàmbalee àndoon ak ñaari doom yi ñuy wax walmi ak walit ma jambal jiwaan faal dalaloon leen mooy maamam ale asan loo moom li ñu xam ci moom bariwul bari na ndax nit la woon koo xam ni jaamu yàlla rek ko ñoroon kuñ nettali ci diggam ak sëñ Tuubaa tuuti di nga ci war a xamee kii moo doonoon kan ndax man mu fekk sëriñ Tuubaa wuy ji woon wooteem bi li ma bëgg a wax rek day mel ne sëriñ tubaa ay mbiram mag ñi ku ci nekk dalay jox suuf kii mu ne la wisal loo bëgg a dëkk kii wis néeg kii wis pantre kii wisub dëkk kii wisub euh, ak kër aale nag daa wisut woon dara dara àddina la koo yitteelu doon la ko sëriñ bi jox da koo war a denc ba ëllëg yowmal mu bokk ko ak i sëtam loolu doo nga tax lii mel nii waaye sëriñ Tuubaa li mu wax waxoon ne mooy ak seex loola aale defoon na ko muy seex loolu bon loolu moom lu wér la seex Muhammadul Mustafa al Karim ab taawam képp kum nangu woon nga jege ko doon bras droit am mu lay laaj ay xalaat kookee doo ku ndaw loolu moom na ko ñëpp leeral aale nag moom ku ñuy wax masata moo ko jur masata mooy ku ñuy wax bàllu ummi moo ko jur bàllu ummi maxtaar xuja daraame maxtaar xuja daraame aale sene bagay aale sene bagay demba binta demba binta maxtaarum ndaam maxtaarum ndaam daam isa daam isa abi bakrin abi bakrin walil walil sama ibnu sofiyu moofin abdourahman xalliyu ibrahima xalliyu xiita cheikh abdul xaadir jeylaaniyu moussa abdullahi yahya sayid mohammad dawooda moussa abdoulaye mahas xasan musanna xasan fatima yonente bi sallallahu taala alayhi la sallam kon kookee sëtub yonente bi la loolu na ko ñëpp xam lenn nit mënuñu koo jaay lu ak njub waaye bu ñuy waxtaan nit ku yiw nit ku baax doomi soxna ku seexlu woon lu bon doo romb aale loolu bëgg naa seeti aale yépp xam ko ndax maxtaar xuja dara mi nga xam ni mooy maamam mooy taawub aale sene bagay yàlla xuja kumba sey ak maxtaar xuja dara mi maami aale ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk baay yàlla xuja kumba sey moo yàlla xuja kumba sey moom lañ joxe woon kooki moom lañ joxoon njaga isa mooy maami sëñ moo Moustapha Mbàkke yàlla xuja yàlla kumba sey aminte yàlla maam soxna aminatuloo Serigne Modou Moustapha Anta Seck xujo kumba sey kumba binta faal tafsir maxtaar binta soxna aminatuloo yàlla xujo kumba sey madu yàlla sëy na bu jóob alburi njaay yàlla xujo kumba sey madu yàlla soxna bu sa ma samba saatu màggat jóob Seex Anta Jóob université kon ale asan ñi baax ak ñëpp bokk na ak ñoom loolu moom na ko ñëpp xam ba tey ale sana bare ale ale asan maxtaar xujo dara mi nga xam ni mooy maamam maxtaar doomi ale la ale sana bare ak njaay demba ñoo bokk ndey ak baay aram loo kum ah, yaa njaay demb aram loo kumba caam faa mu jóob faa waddi wele alxaaji malik loolu na ko ñëpp xam mbër gu demba balla fan ma demba bëri salmatuloo anta sëri kan sëñ mor anta sëli sëñ tubaa xaadim rasul kon ñun mbokkum ñëpp la loolu moom bëgg naa ñun ñëpp xam ko léegi nag li ci des mooy xam gi ak ràññee gi xam ñooy ñan kenn bañ ñoo noggatu kenn bañ a toog ci suñ gaw bopp yi ñu xam ne ci réew mi lañ bokk buñ doon waxtaanee lislaam dañuy woo loolu na ko ñëpp xam loole nag mënta ci loolu ak yiw ak mbaax yaru tabe mbooleem jikko yi nga xam ne yàlla gërëm na ko mu ne ci yow loolu nañ nañ ko teel xam bu loolu jàllee it ale asan loo moom doyoon na sëkk ci lee xamee ni moo ne woon cib dënnam ñëpp ràññee woon ko si ci li ma dégg man koo nettali ci maandute wax nañ ne bu ma saane téyeb kaamil bu manqué ab aw xarab sax dana ko xam waaw bu ko manqué rek kon kookee nitu alxuraan da kookee koo xam nii ku man alxuraan la koo xam nii gannaaw ay loxoom mooy pees alxuraan bu ma bu manqué mu xam ko kookee du ko ndaw te alxuraan xam ngeen ne du yëfi gone képp ku nekk ci sa dënn mooy taxit àdduna ak alaaxira loolu tamit war nañu ko xam waxtaan wi waxtu wu nekk dañuy bëgg muy yaatu bu ñu koy programme yi ci suba gi ak bu ñu nee suba la dañ ñu wax ñu yaatal ko waaye waxtu wi day yegg foo xam ni daf ñuy tënk ba yaatal gi niñ koy bëggee du du du mën a nekk ale nag fi mu bokk nii wax nañ ko doy na sëkk ndam la gannaaw loolu dafa am lu doonaan ndam lu rëy loo xam ni waras nañ koy leeral bi Serigne Touba wootee wooteem bii ca mbakke Kajoor ci atum wolof ci 1302 dafa wuy si comme ñi mag ñëpp wuy ndax sëriñ moom ku ne xam ne ne mooy ki nga xam ne wooteem bi képp ku ko woo fekke te wuy si woo ko mooy sa texe di adduna ak alaaxira alamu man xasadani laa yan sarim la wax képp ku ma bañ ci naqaru sax ci naqaru sax dàkk ngay dëkk wa bisru man yuhibuni ma bëgg ci bànneex bu ñàkk wax ne li kulli man bi taxal laxa najaa min kadari dunya wa fihim najaa ku ànd ak man du tase nëx nëxi àdduna ak alaaxira kon loolee nan suñ ñun na suñ xel dal li ci des mooy ñu xam ne deret ji ñoo ko bokk yàlla dafa am lu mu def te mënoon na koo defee ci waneen anam bu ko neexoon nit ñi ku war a ñëw rek da ngay jógee ci kaw asamaan wala nga ball ci suuf si ñëw bu defee ñett nit war bokk ndey ak baay am ay doomi ndey ñii di doomi nijaay ak doomu bàjjan am na lum nar nañ xalaat li tax ñun ñuy bokk benn biir yàlla am na luñ nar pour ñu bennoo la wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu inamal mu'minuna ikhwatun ak mbokk des koy sàmm rawatina mbokku deret kon nañ jàppante te xam ne lii nii lépp ñu fekk ci àdduna ñun duñ du woon suñ suñ suñ jubluwaay lu ñu dab la sëñ Tuubaa nee na ñun julli di sinnul mu'minin wa jannatul kaafiroon àdduna kosob julli la ji àjjana yëbër kon li ñu fi dab ci wërsëg nañ xam ne loolee lu mënoon a ñàkk la bu ñu fi dabee rek ndimbalug yàlla la waaye du woon loo xam ne ñun julli di warees nañ ko ñoo ngi jéggalu baax wasalaam ala man ittabaal huda di jéggalu baax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen siyaare di leen balaax te di leen balaax di ñaan ci sunu borom borom jéggal mu jéggal nu te sunu borom yokk sëriñ Alla Assane ay leer yokkal ko àjjana te taas ñu ci barkeem te taxawu njabootam yépp la ko dale ca doom ya ba ci sët ak sëtaat ya ilaa yawmi diin mel ne rek kàddu gi dañuy leen di yëgal rek ne leen bi nu nuyoo nuyoo bi xam naa dañ koy teg ci loxol sama mag sëriñ Abibu mu xoolal ma ci biir famille bi mu séddaleel ma ko ci biir famille bi ndax moom ñoo bokk bàyyi waaye soxna Oumy Lo mi nga xam ne teqalikoowu nag ñoom benn yoon ñu ngi koy nuyu bu baax mu tegal bi ko ci loxoy soxna yi kàddu gi nag kàddu famille yu daam isala du sama kàddu ndax bi ma ñëw ci seen ndigal laay ñëwee ci njiital baay ma soxna loo mi nga xam ne moo ci mag ak sëñ Ibra Loo ak mboolem mag ñi bokk ci ndaam ñuy fondation Daam Isa ñu boole ma ak sëriñ Mouhamadou Nasir Lo moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Mor sa moom Masatante Mbissine moom Gaydel Khoudia Koumba foofu laa yem ma ànd ak sëriñ maam góor moom alxaaji njaxat loo moom madun mbay maram jaxate moom masata kumba jëmb moom njaay ndaak moom siri xujja kumba ak moodu moom sëriñ ibra moom sëriñ maxtaar alima moom madun mbay astatal moom daam xujja jëbu moom ngay del xujja jëbu man mi wax ak sama waajur mooy sëriñ aale jëbu te ndaamul Mor Faa Demba di doomi Madu Maxtaar la moom Mor Faa Demba moom ngay del xujja kumba kon kàddu gi mooy dañuy ñëw ngir ànd ak yéen ginnaaw dañoo am mbootaay bu mag ñu di ko wax famille yu Daam Issa te Daam Issa sëñ Ousmane wax na ko léegi moo jur Omarum Daam ak Maxtaarum Daam te moxtaarum daam moo mee jur demba moxtaar mu jur aala demba mi nga xam ne moo jur bàllaxu jadraame mu jur masata xari mu jur sëriñ asal kon dañoo ñëw suñ kër kon dañoo ñëw suñ kër bi ñu ñëwee suñ kër nag ci ndigalal mag ñi mag ñi nuyu nañ leen di leen xamal ne fépp fu ngeen nekk ak fépp fu ngeen toog dañoo xam ne daam isa ngaar moo jaboote Omar ak Maxtaar ni ma ko waxee léegi Maxtaar nag mooy lii tey mooy njabootam ndax tey ma njabootu Maxtaar Xuja Dramé ak Balla Xuja Dramé ak Mbargaan Xuja Dramé boo leen tey ñu bokk benn ndey ak benn baay ñooy ñii tey jii ndax Maxtaar Xuja Dramé xaj na ni ko du ci xaj moo Balla Xuja Dramé ñoo bokk ndey ak baay Maxtaar Xuja Dramé moo jur Njaay Ummi Maroon ak Balla Ummi Maroon nja maxtaar kunta daraame jur njaag ummi maroon ak balla ummi maroon kon bu fekkee ne tey jii ñëw nañ fii tey fekk leen fi day mel ne benn mbootaay rek la jataay bi nag mate na lépp ñi ci doon wax wax nañ lépp dégg naa suñu jëm suñ mag ji njëkk a wax nga xam ne mu ngi xëccoog saa mag jeer ak mag kon man sama mag rek lay daal doon ndax kee ma yar Habibou Lô mais moo ma yar dégg naa mu wax ko léegi kon ku sant loo fépp fu mu dem dafa war a doon jawriñ kon yoon na ko ba mu demee ba Arabie Saoudi ñu mu woon fa noonu ndax damay gàttal ah sëriñ Ndaam Abdourahmane ci askan wi la bokk dégg naa léegi sëñ Ousmane junj na diggante Njaay ba Aram Lo Kumba Caam Farma Jóob Fawade Wele ba ci Alaaji Malik mbar gu dem ba balla mbar gu daam buri sàmb saliloo ant salikan ba ci mammoor anta sali waaye njuga dem ba mataar njuga ma sàmba soxna marul awa jama ba ci sëñ daam abdourahman sëñ daam abdourahman moomee sëriñ tubaa da ko ne abdourahman mu ne ko mbàkke mu ne ko am ngeen juróomi ndam ci man yoo xam ne yéen la ko yàlla jagleel te ñépp a ko bëgg yéen la ko yàlla jagleel te ñépp ko bëgg ma bëgg ngeen déglu ko bu baax ndax xam sa bopp dafa baax xam sa bopp dafa baax ku dem ba sëriñ Touba di la wax ndam loo am da koy déglu boobu bu ëllëgee boo dajee ku la ko bëgg a ko nga wax ko ni ko fii laa jaar mu ne ko benn bi ci njëkk mooy ba nga xamee ne nii këram war naa taxaw sunu borom moo ko tànnal askanu ndaam ne ko jëlal ci askanu ndam indi ko taxawal ko sa kër muy soxna Aminta Lo mu jiitu ca këram mu tekke sax ne ko ku sant mbàkke ku ne war naa lu ba sa kenn ku sant loo doonte kenn di fa yeewoo wala su dul ka ko am dana am lum la gañe muy benn ndam ñaareel ba mu ne ko ba sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fall waree dal jàng alxuraan yu bari bi ma ko seetee sans borom damaa gàntal waaye ba ma seetee daaray ndaam sans dama ko nangul moo tax ma jox la ko nga jàngal leen war na sax ci ku sant Mbàkke doonte benn bis mu jaar ko ci daaray ndaam muy ñaan ñetteel ba mu ne ko kero bi ko tubaab bi joxe leetar di ko woo askanu Mbàkke mbusoobe ñépp dañoo daw di ko wax ne ko kuñ fi fekk jàppale la lii boo ci duggee sëñ Ndaam Abdourahmane ne ko man de Mbàkke bu ma la sañoon a digal dinaa la digal mu ne ko may naa la ci ndigal mu ne ko ñii la wër amuñu ci solo ki la tax a bàyyi àdduna ak li ci biir moo mat a déglu muy sa borom bu la nee demal demal bu toogal toogal mu ne ko hakaza abdourahman sa làmmiñ wi mooy sama lisaanul xaal ci laay waxanteeg suñu borom keroog bis penc muy ñetti ndam ñeenteel ba mu ne ko kero bi nga xamee ne dem na Gabon tëju fa cib néeg weer ba weer wa dellu si ca déwén sa kenn gisul sëriñ Touba sëriñ mu Lo Dagana maami sëñ Ousmane mii moo ko fa fekk sukk ca buntu ne ba di wax uwa nabii wa rasulu wal xalil wa huwa al abibu wal imaamu wa dalil ba sëriñ Touba ubbi buntu ba yam ci moom mu ne ko lool ndam la lu rëy ci ndam ku ne bëggoon na ma ubbil ko te yéen la ko sans borom jagale juróom-benneel juróomeel ba mooy bi mu jógee ci géej gi juróom-ñetti at yu manqué tuuti sunu borom duyal koy ndabam ba mu fees mu war seet fu mu koy denc dencukaay daa seet askan yépp askanu ndaama ko ci doy moo waral mu dem sànn seen kër maam sànnu si fekk fa sëriñ Siré Lo mi ngeen bokkal mu dalak sëriñ Siré denc ko fa loolu lu wér la kon juróomi ndam yi sëñ Touba nee woon na askanu ndam képp la ko yàlla jagaleegu sànnoo si goog yi nag Balla Khoudia Dramé mi nga xam ne mooy bàyyi masata moo jur Balla Balla Khoudia Dramé moo jur euh, euh, Siré Buri Samb mu jur Mayib Siré mu jur Serigne Serigne Siré mu kon yéen a benn maam te Serigne bi dafa waxoon ba mu fay dem ca sànnoo si la taxoon mu def ko fa daaru salaam la ne maam Cheikh Anta sant leen yàlla la ma doon wuti am naa ko waaye nag ma seetal ab dencukaay mu ne ko ndax ma ci lot mu ne ko dama lay jox tegtal mu ne ko tegtal yi mooy lan mu ne ko dëkk boo xam ne juróom-benn fukk yu mokkal alxuraan da tey yomb te seen cosaan benn penc moo xam ne buur mosu faa falu buur ña ko sanc mosuñu falu buur penc moo xam buur mosu faa bal wala bu ca fetalee bal folli ñett yii laa ma def fa denc maam Cheikh Anta ne ko ndaam la loolu askanu ndaam dong nga ko am nga Abdou Karim Lo Ngaabu bind gutal ma juróom-benn fukk diggante Kajoor ak ñu bindal ma kaamil ku nekk bind isib mu ne la jërul dem Bawal jërul dem Kajoor fii ci Bawal laa koy tànne daal koy wutal juróom-benn fukk yu mokkal alxuraan ku ne bind isib sëriñ Tuubaa jël kaamil ba taf ko cib dënnam ne noonu nafa saati gi rek lañ sàddawut te maa ko war def loolu ci askanu ndaam rek la am mu ne ko buur bu santuloo xamuñu ko penc mu santuloo benn la fa buur masa petali bal ñetti fan ñu ñu boom ko kooku mooy folliku ga kon loolu su amee kon askan wi askan wu rëy rëy la ngeen fonk ko bu ñuy wax nag askan wi bu ñu yëkkati koo sant bi lee sëñ abi bu di def alxuraan lan ñu xame kenn xame wu ñu ci leneen lu ñu def dañ ko jëggaani te lépp lu ñu dugg lu dul alxuraan duñ ca am ndam buñ ko ca amee tey danañ am bis boo xam ne ni danañ ko da danañ ko bëggoon a dindi alxuraan lañ xam lislaam jaamu yàlla ànd nekk benn bëggante ku sant loo képp ngay jaar fii ci mbedd mi dégg ñu ne loo nga taxaw ne ko ah yow loo nga sant mu ne waa nga ne ko yow di sa mbokk kon maa ngi balu àq ñëpp di leen baal àq di e, ñaan sunu borom mu defal ñu sutura defal ñu aaju fay wasalaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim xayril maxlubi alayhim walada amin jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf sëñ Alla Assane Lo sunu waajur wa moo ñu booleeg sëriñ Touba bi faj ajotee ëllëg jërëjëf moom asalaamaaleykum aleykum rahmatulahi taala yéen mbokki jullit yi yéen mbokki talib yi mbooloo bi fi daj yëpp góor a jigéen mag a ndaw yéen ñëpp maa ngi sama tur ak sama sant di leen gërëm bu baax a baax kàddu yi li fi war a jib lépp jib na man daanaka amatuma ci lu ma ciy wax li ma ciy doole lu néew la maanaam mbirum sëriñ soin bu mi ñuy wax si diggante ak suñu alasan man mii sama tur wii moomu tudd soin bu bi suñ soin bu amee daara lu mbel saye mu xëyee Tuubaa takku fas jaar sama kër baay tekki yendu ba ngoon bu ngoonee mu gont dem lu mbel saye noonu la doon baagante ba yàlla dogal bés bi ñu ma war a tudd ci la sëñ Sohibou bu xëyee Touba wàcc sama kër baay bi mu ñëwee ba wàcc ba toog ci biir lañ ma laxas jox ko mu tudd ma aw turam ba mu yendoo ba ngoon mu gont lu mel sayee kon loolu dama ko doole ci li ngeen wax ci diggante sëñ Alla Assane ak sëñ Soye bu loolu mooy sa sama tur wi ak sama diggante ak sëñ bu saa bu xëyee Touba war a fos jëm lu mel sayee booba Aliou Gile bi wan ko ab laat mi ngi si daara yi sëñ Soye bi muritu day ñëw tekki fas yi dugg ci biir yenn ba ngoon mu gon mu takkaalaat ko mu jàll lu mel sayet bu jógee lu mel sayet moo tax areem boo xam bi daal saa bu jógee fi lay da fi lay noppaloo loolu mooy saw at mi ma juddoo nag bis ba mu jógee tuubaa ñëw sama kër baay wàcc ñu tudd jox ma ko mu tudd ma yenn ba ngoon mu jàll lu mel sayet loolu lu wér la gannaaw loolu itam maa ngi sant ñëpp nag li ma ci war a wax du bari ndax ñi war a wax ñëpp wax nañu moorloo mi xam ne mooy sama rak ma rek te doyloo naa ko ci lépp wax na bu waxee daanaka jotut may wax ak i doomam wax nañu abi abubul aboloo ak ñëpp ñi war a wax ñëpp wax nañu kon amu ci lu may wax sant naa gërëm naa sama xol sedd na damay ñaan lii nga xam ne tey su borom dogal nañu xàll ko muy dox beeg si man mii tey jii damay ñaan suñu borom jàppal nañu ci ba fañ ko bëgg a yóbbu yóbbu ko fa ci barkab Sëriñ Tuubaa yàlla na yàlla def faj aajo yëpp góor jigéen magando képp ku fi teew ak ku fi yéenee teew ak koo xam ne kii sëb dërëm dem na ci bés bi la nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko ci waa defal ci barkab Sëriñ Tuubaa jërë ngeen def wa salaam kon na léegi naa jox sëñ Alaaji Mbàkke mi mu ñaan ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا انك من تدخل النار فقد اعصيته ومن سالك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا bismillahi arrahmani irrahim asraqa nuurullahi wa sahara kalaamullahi wa sabata amrullahi wa nafa sawkumullahi astahantu billahi wa tawakkaltu ala llahi ma saa allahu la quwata illa billahi taasantu bi qabilu fillahi wa bi latifi sunhillahi wa bi jamili sitrillahi wa bi asim sikrillahi wa bi quwati sultanillahi daxaltu fi kanafillahi wastajartu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baritu min hawli wa quwati wa taasantu bi hawlillahi wa quwatihi allahuma usturni fi nafsi wa diini wa ahli wa maali wa waladi bi sitrika allazi satarta bihi saataka fala yadun taraaka wala yadun tasilu ilayka ya rabbal alamin wajubni ahlil xamis salimina bi qudratika ya qawi ya matinu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran daiman abadan ila yawmi ddin walhamdulillahi rabbil alamin alfatihi lima uxliqa walxatimi lima sabaqa nasir alhaq bilhaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi qadri wa qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin barka amiin